alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasulillah mbokk yi noo ngi sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala di julli ca yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu ca lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi alhamdulillah noo ngi fas yéene dellu si waat ak yéen ci sunu fàttali yi ñuy amale ci téere bi di xisnul muslim noo ngi toll nag ba léegi ci adkaaru sabaaxi wal masaa des na ay zikkar yu néew tey insha allah sunu zikkar maanaam ñaan gii ma leen di jox suba rek lañu koy wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ko doon defee ñaan la gàtt waaye nag gu làmboo ay mbir yu bare bare bare bare bari lépp nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo lëm ci biir danañ jéem kéemtalaay kàttan pour lëmmërti ko ba ngeen mën a xam li ci biir lépp insha allahu taala ñaan gi mooy allahumma inni as'aluka ilman نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ñaan gi bu ngeen seetloo lu ci bari nit ñaa ngi koy dégg ñu di ko toppandoo waat ci tiktok bi whatsapp beeg ya ca des ab xale di ko toppandoowaat di ko jaxase ma bëgg nag ngeen déglu ñaan gi ñooñu di jaxasewaat ak di ko toppandoo ñaan gi mooy gan ñaan ma bamtuwaat ko ngeen dégg اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا loolu mooy ñaan gi ñaan gi ci boppam sunu yaay ummu salama yonent bi salaatu wasalaam amoon na soxna suñuy wax ummu salama sunu yaay la ñun jullit ñi ummu salaama moo nettali moo wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa saa yu daan julli suba ba noppi saa yu daan julli suba ba sëlmal daan na wax ñaan gi suba gu mu jullee rekk dana ko wax mooy allahumma inni as'aluka ilman naafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala suba gu mu jullee ba àggal dana ko ñaan ma tekk ñaan gi ci lu gaaw nu doog a lëmmarti nag ci biir lépp insha allah ñaan gi mooy allahumma yow yàlla sunu borom as'aluka maa ngi lay ñaan maa ngi lay laaj nga jox ma maa ngi lay ñaan nga may ma ilman naafi'an xam-xam bu may jariñ xam-xam bu may jariñ yàlla nag mu ko may wa rizqan tayyiban ak wërsëg wu lew te bari wa amalan mutaqabbala ak jëf ju ñu nangu jëf joo xam ne yow sun borom danga koy nangu looloo undu ñaan gi lan la yonent bi lëm ci biir bu waxee ni maa ngi ñaan yàlla xam-xam bu may jariñ déglu leen bu baax da ngeen ci jàngee ni nit ki heure bu xëyee bés bu xëyee mi ngi am xam-xam yu bees yu ñëw ci moom soit muy journal bu mu déglu dégg ca dara wala muy leçon bu mu jàng bees wala benn situation bu mu fekkee mu jàngee ca dara kon bis bu nit ki xëyee yaa ngi jàng dara li ko xam soit muy élève buy jàngi wala muy ndongol dara luy jàngi wala muy mag mu nekk ca université ba wala professeur bi jàngale ji bés bu jot ku nekk yaa ngi jàng soit muy jàng ci sa morom wala nga koy jàng ci jëfandikoo yi ngay jëfandikoo ak àdduna bi yonent bi nag ni ko yow sunu borom lépp loo may jàngal yal na nekk loo xam ni lu may jariñ la yal na nekk loo xam ni lu may jariñ la ma am xam-xam bu may jariñ xam-xam buy jariñ nit ki nag mooy li koy jariñ àddunaam ak àllaaxiraam mooy xam-xam bi nga xam ni mooy tax mu xam fan lay teg tànkam ci li ko yàlla wax ak li ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ak li ko charti réew ma muy dundee wax am na ñoo xam ni fu ñu waxee nga foog ni bari nañ xam-xam lool te seen xam-xam jëriñu leen tus ci sunu réew mii ñu nekk dong ma bañ a sori ci sunu réew mii dong di Sénégal léegoo nga dégg fi borom xam-xam ku ñuy tuddee borom xam-xam wax waxi saay-saay yu bon lool ba ñépp dañuy jàpp seen gémmiñ naan waaw kii nu mën a waxee lii xanaa kii amut xam-xam wala nga gis kuy def dara lu bon nga ne ah lee ay baax na ndax diw a ko wax te diw am na xam-xam fekk loolu mooy ko am xam-xam te xam-xamam jëriñu ko tus xam-xam am na ko mais day loraate ci biir xam-xam bi xam-xam am na ko mais xam-xam bi mën na ko tàbbal ci merom sunu borom tabaraka wa taala mën na ko tàbbal ci jéppi boromam tabaraka wa taala moo tax yonent bi ne ko yow suñu borom boo may may xam-xam lépp lu ma xamal yàlla na nekk lu may jariñ man ci sama àdduna ci sama àllaaxira waaye nekk lu may jariñ ci ñi may jëflanteel nekk lu may jariñ maak sama njaboot nekk lu may jariñ maak ñi may déglu ñëpp su ko defee loo wax dañ koy dégg man ko comprendre man ko jëfee ci na ko yàlla ak yonentam bëggee mën ko defee ni nga xam ne noonu la ko société bi bëggee loolu mooy xam-xam buy jariñ ko xel bu baax te ko yàlla joxee yàlla da lay bëggal boppam gis nga ko kon ñaanale na ci biir ñaan gi mbëggeelu sunu borom yàlla da lay bëgg yàlla da lay yëkkati ba mu kawe lool yàlla nee na yarfaci llaahu alladina aamanu minkum walladina utul ilma darajat wallahu bima taamaluuna xabir yàlla nee na day yàlla dana yëkkati ci yéen ñi nga xam ni gëm nañu yàlla dana leen yëkkati ba ñu kawe lool ci képp ku gëmut yàlla waaye nag bu ma leen yëkkatee ba mu kawe danaa ca tànn ña nga xam ne am nañ xam-xam buy jariñ ma gën leen a yëkkati ba ñu gën a kawe lool yokk leen ay daraja nga xam ne duñu tolloog ñi amul xam-xam loolu la kon xam-xam buy jariñ looloo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko teyit xam-xam soo ko amee yaay gën a yaay gën a ragal yàlla innama yaxsha allahu min ibadihi al ulama yàlla nee na ñi ko gën a ragal mooy ñi ëpp xam-xam waaye nag waxul xam-xamu kàccoor de xam-xam buy jariñ ndax bëri nañu am xam-xam ba noppi di jëf-jëfi saay-saay di wax waxi saay-saay di wax lu dul dëgg ci nit ñi ak di daganal lu xaraam di xaraamal lu dagan bari na ci sunum réew lool kon xam-xam buy jariñ la yonent bi ñaan kon na ngeen ko bàyyi xel yéen ñëpp képp ku xëyati suba na ko defee ne ko yonent bi ji defee xam ngeen ni yonent bi xam-xamam bi ko sunu borom jox lépp mboolem li ko yàlla xamal lépp ci lu baax ak yiw wax na ko xeet wi bañ ko mën di jëfee mboolem li ko sunu borom xamal ci safaan wax na ko xeet wi bañ koy jëfee ba nim fi jógee ci ci ci ci ba nim génne àdduna waxut mukk lu ñu jàpp gémmiñ waxut mukk luñ naan ci la yonente ba wax defut lañ naan ci la yonente ba def lu wax lu mu def lu nekk rek saxaaba yi roy nañ ko ci looloo ndax jëriñ gu mu jëriñ ba tey jii nii may wax ak yéen xam-xamam ci la nit di dundoo xam-xamam ci la nit ñi di doxal seen àdduna ak seen alaaxira fi mu ne nii xam-xamam a tax ñu bëgg ku ñu bëgg bu fekkee danoo bëgg masalan Serigne Touba xam-xamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu doon jëfandikoo moo tax ñu bëgg ko buñ bëggee alxaaji malik si kazalika xam-xamam a tax ñu bëgg ko maanaam xam-xamu yonent bi mu doon jëfandikoo moo tax ñu bëgg ko boroom xam-xam bu nu mën a bëgg muy docteur Ahmed loo muy alxaaji Malick Sy muy Serigne Touba Mbacke muy oustaz bi ngay déglu muy Serigne koo mën a yaakaar di ko déglu la tax ñu koy déglu mooy jëfandikoo xam-xamu rasulullah mais ku fi bàyyi xam-xamu rasulullah ñépp jëppi la lu tax parce que xam-xamam dafa jariñoon lool kon ñaan gu am solo ngi nii mooy bu njëkk bi yal nañu yàlla may xam-xam buy jariñ mooy bu njëkk bi ñaareel ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko yàlla yàlla nag ma may wërsëg wërsëg wu lew wërsëg wu lew wërsëg lew nag su ko yenent bi ñaanee loolu mooy tekki ne ko yàlla saa yu ma tàllalee sama loxo di la ñaan yàlla nag ma nangul ñaan gi est-ce que xam ngeen ni képp kuy dunde alal ju yàlla du nangu sag ñaan saa boo yëkkatee sa loxo di ñaan bàyyi leen ko xel bu baax de moo tax yonent bi ne ko yàlla lépp loo may may ci wërsëg yàlla na nga ko lewal ba mu lew su ko defee li may ñaan mu mën a nangu wërsëg wu lew nag dana tax dana tax dana tax nit ki mën a wattandiku bàkkaar ak mooy yàlla déglu leen bu baax de wërsëg wu lew soo ko amee dana tax nga bàyyi bàkkaar ak mooy yàlla lu tax ma wax ko bala nga am wërsëg wu lew faw nga sax ci li yàlla bëgg di bàyyi bàkkaar ku ko bàyyiwut doo am wërsëg wu lew yonent bi nee na inna rajula la yuxramu rizq bi dambi yusibuhu yonent bi nee na am na yusibuhu am na yusibuhu yonent bi nee na benn waay yàlla dana ko xañ wërsëg wu lew ci bàkkaar bu mu def kon képp ko bàyyi bàkkaar ak mooy sunu borom yàlla dana lewal sa wërsëg kon bu yonent bi di ñaan ne ko yàlla yàlla na nga may wërsëg wu lew loolu mooy yàlla yàlla ma dimbali ba duma def bàkkaar du ma def ak mooy yàlla bàyyi leen ko xel bu baax de noonu la yonent bi di ñaanee day wax benn wax ngeen ni fii lay waxee fekk lam bëgg a waxaale dafa bari mais mënu koo di ko lim di ko séparé da koy tënk rek nit ñaa koy tënkërti nag ba xam lim bëgg a wax ba ca topp mooy yeneent bi nee na azina yurisul faqra nee na njaaloo day tax sunu borom def nga def la nga nekk ku ñàkk doo am dara kon bu yonent bi ñaanee yàlla mu may ko wërsëg wu lew te yaatu kon ñaan na yàlla mu musal ko ci njaaloo gis ko maanaam yonent bi dafa évacuer lépp loo xam ne da koy teree am wërsëg daq ko ba noppi ne ko yàlla indil ma wërsëg wu yaatu ba ca des mooy xam ngeen ni jokk mbokk day yokk wërsëg mhm, day yokk wërsëg kay yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku bëgg yàlla yaatalal ko wërsëgam barkeelal ko njabootam ne na nay jokk ak mbokkam kon su yonent bi ñaane yàlla may ko wërsëg wala wu yaatu ñaan na yàlla mu yombalal ko mu jokk ak mbokkam ndax bala nga am wërsëg wu yaatoo ko lew faw nga teg sa tànk ci di jokk sa mbokk di moytandiku bakkaar di moytandiku njaaloo ba ca des mooy wax dëgg day tax nit ki am day tax nit ki am wërsëg wu yaatu kon su yonent bi ñaanee loolu ñaan na yàlla mu may ko muy wax dëgg fu mu toll yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ko faram-fàccee ci xaddis bu gudd lool xaddis ibn uh, ali ibn abi talib ak abu bakar ak omar ak abu ubayda xaddis bu gudd la lool mu leeral ko ci kon loolu mooy wërsëg wu lew ba ca ëpp solo ta gën ca kéemaane mooy képp kuy dundee wërsëg wu lewut boo yëkkatee sa loxo di ñaan yàlla yonent bi ne na yàlla du la nangul sag ñaan ndax kat nee na inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiban yàlla day ku lew ku ku ku teey la ku baax la ku sell la du nangu mukk lu dul lu sell kon ki demoon sàcc alal saraxe ko du am tuyaabay sarax ku sàcc woon xaalis tabax jumaa du am tuyaabay tabax jumaa ku sàcc alal jënd ci kaamel saraxe ko it doo ci am tuyaabay saraxe ndax la nga jël dafa lewut kon sunu borom du ko nangu même boo sàccoon alal aji màkk suñu borom nee na bëgguma du ko jël looloo tax yonent bi nag ni ko lii lépp comme baaxul yàlla nag ma may wërsëg lew wu yaatu lool ko kon nu bàyyi ko xel encore ndekete ñaan gi lu baree baree bari la wundu mooy wërsëg wu lew mu teg ca ni ko wa amalan mutaqabbalan nee na ko yàlla yàlla nag ma may jëf ju nu nangu waa mbokki jullit yi est ce que xam ngeen sunu jëf yi ñuy jëf waaraate yi ñuy waaraate julli yi ñuy julli sarax yi nuy def ah dox mbokk gi ñuy dox mbokk jàng alquranul karim yii ak astaxfirullah yi ñuy def ak laa ilaha illallah yi ñuy def est ce que xam ngeen ni yàlla nangu na ko wala nanguwu ko loolu yàlla rek a ko xam te lenn lu ci yàlla nangu mooy sunug àjjana taxaw na mooy sunug ajjana taxaw na nit ki mën naa dund di jëf di jëf ba àdduna tukki yàlla du ko nangul dara parce que na pas pasama tax pas pasama tax kon yonent bi su ñaanee suñu borom ni ko nangul ma samay jëf ñaan na yàlla ni ko teg tegal ma sama tànk fa nga bëgg ma teg ko fa fa nga bëgg ma teg ko fa may ma may ma may ma kàttanuk may jëf li nga bëgg ma di ko jëf ba nga man di ma nangul sama julli ba nga man di ma nangul sama julli ñu bari dañuy jëf ba noppi yàlla sànni ko parce que yàlla bëggut loola xam ngeen kiy jëf ak jaamu yàlla di ko booleeg leneen lu dul yàlla kooku suñu borom nee na ko nangul duma ko nangul yàlla suñu boroom wax na ko yàlla nee na man dey ku fiir laa lool képp ku jëf benn jëf boole boole ma ci man ak keneen nee na ma bàyyi kook jëf ja duma ko nangul dégg nga ko te nit ki pour yàlla nangul la faw nga doon ku ragal yàlla kon su yonent bi ñaanee jëf ju nangu ñaan na ak ragal yàlla gis nga ko waa ja dafa waxoon rakkam ja xaw ma magam ja ni ko innama yataqabbalu llahu min almuttaqin nee na ko yàlla buy nangu jëf day bàyyi ba nga ragal yàlla mu nangul la sa jëf waaye fekk ragaloo yàlla du la nangul sa jëf ñàkk ragal yàlla nag mooy wax loo gëmut def loo gëmut ak yu mel noonu di wane ak mbaax di ko fësal te fekk baaxoo ak yu mel noonu kon bu yonent bi ñaanee jëf ju nangu kon lëmbaale na ca ni ko yàlla defal ma ma di ma di ko ragal yàlla waaye may ma it ma teg sama tànk fa nga bëgg ma teg ko fa te jëf ju nangu yombul de danga foog dangay jëf rek mu nangu ak jafe allahu akbar ak jafe exemple bi ma lay jox te tëj euh, adduna àdduna adduna ban néeg la fa yàlla gën a fonk su ma leen ko laajee da ngeen ma tontu ni ma kat kaaba ga la yàlla gën a fonk ci adduna hmm? loolu moom defe naa ni mooy tontu bi bu ngeen ma ci tontuwul ci loolu it ma confirmer que néeg bi yàlla gën a bëgg ci àdduna mooy kaaba ga loolu mooy li wér li aywa ñu dem léegi comme que yàlla kaaba gi la gën a bëgg bind àdduna bi nit ñëpp taxaw mu tànn mu tànn benn jaamam muy Ibrahima tànn doomam Ismaïl ne ko tabaxal leen ma néeg bi ma gën a bëgg ci àdduna xanaa kay ñooñu am nañ succès ah xanaa kay ñooñu am nañ succès am nañ ndam mais ñoom ba ñu tabax kaaba ga dañoo yaakaaroon ni yàlla sax du nangu la ñuy def moo tax yàlla mu ni wa id yarfau ibrahimu alqawaacida min albayti wa ismailu rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alalim yàlla mu ni ibrahima ak doom ja bu ñuy yëkkati mool di teg dañ naan ko yàlla yàlla nag ñu nangul mool bi ñuy teg daal di teg yëkkatiwaat mool ni ko yàlla yàlla nag ñu nangul sunu jëf ji daal di yëkkati teg xanaa kay ku yàlla tànn ne ko tabaxal ma kaaba gii war nga sa xel war naa dal ne nangul nañ ma waaye ñoom ñu ngi tiit foog ni borom bi du leen nangul loolu mooy ak ragal yàlla dëgg kon lii laa waxoon ni moom la yonent bi lëm ci biir ñaan gi ma bëggoon sama kemtalaay kàttan ma lëmmërti ko donte nag andiwuma lépp ndax xam-xam bu tuuti bi ma yor maanaam maanaam xel mu gàtt mi ma yor moo tax ma indi ci lii képp ma indi ci lii képp waaye lim ci lëmb bëri na lool lool bokki julliti ñaan la goo xam ni ak lu ko nit ñi woyefal woyefal lu rëy la ndax li mu lëm moo bari li ci yonent bi lëm lépp su ko nit doon détaillé di ko ñaan di ko ñaan mën na toog suba ba ngoon di ko ñaan mais mu tënk ko ci ñetti kàddu képp mu lëmb lool yëpp soo ko ñaanee rek da ngay am lii lépp kon bokki jullit yi loolu mooy sunu fàttali tey noo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal nu jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira te defal ko mboolem jullit wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu تجزى بما قد قدمته يداك